académie Hann Bel-Air moo doon amal première édition tournoi de football intercommunal bu boole Hann Yoff Barni ak Kermoussé pour fësal seen lëkkaloo ak waa Atlético Coruña nek fële ci Espagne ñu àndoon ceeg ñenn ci ñom ngir ñu and ci ay leeral. Wa tournoi bi puisque mën naa ne lépp sama ci sama loxo la jaar Euh bima amé idée bobu comme Biram dafay nek di jàppale école football yi ma am idée boobu ma ñew yaraax waxtaan ak ñom ci l'Olu. L'Olu ci la tournoi bi dekkee depuis le début juillet lañ ko démarré ba légui amul benn problème wax deug yalla amul benn journée bo xamante amna am problème lépp jaar na yoon dal tournoi intercommunal c'est un tournoi qui regroupe commune Yoff commune Bargny commune Kër Moussé ak commune Hann objectif tournoi bi c'est fexé ba mo am une promotion du sport au niveau des quatre communes yi nous donc au-delà de la promotion du sport nous avons un volet éducatif tel que l'éducation routière pour que nous nekk soyons bu bons usagers de la route nous avons un autre volet qui est l'éducation environnementale pour que nous respections l'environnement avec le civisme pour que demain ces jeunes là nous répondent à li nouveau type de citoyen Nous avons ñu ngi rafetlu bis bi tay wax itam ci jafe-jafe yi ñuy jànkonteel. Ah, idée bu rafet la ñu tuddee ko tournoi intercommunal di si dara jaale benn grand bu baax bu ñu tudd Biram Samba nekk Espagne di def liggéey bu am solo si petite catégorie au niveau national. tournoi bi euh, satisfaction lañ si am total quoi parce que évolution tournoi bi du début à la fin euh, organisation bi jaar na yoon quoi. parfois du ñu bëgg étude xale yi di yàqu. dañu leen di bëgg di bàyyi ñuy jàng parfois dina métti torop torop torop pour ñu leen di regrouper mais nag surtout milieu bi nga xam ne dañu ci féete dañuy bëgg chaque fois di regrouper xale yi nga xam ne leen encadrer pour ñu bañ a di dem surtout surtout lu mel ni si géej géej surtout côté bii ñu nekk nga xam ne yàqu daf fi xaw a yomb. rassembler ay xale ñëw tamit di leen jëm a tegaat ci yoon bi loolu moo doon ay difficulté waa mais xale moom boo jëmee xam foo jaaral teg moom rek après petit à petit rek dina ñëw waa Boubacar Saliou di seen vice président di ñu xamal ne naam bëgg nañ xale ay professionnels waaye itam ñu doon ay cadres yu mag. ñu ngi xaar ci d'abord ñu nekk des bons citoyens avant ñu nekk d'abord de bons footballeurs de bons cadres ñoo xam ne dinañ servir seen pays pour cela dafa laaj tout un ensemble de valeurs yoo xam ne dañ leen ko inculquer depuis la base. parce que boo bëggee tabax dëkk da ngay commencer ci ndaw ñi donc moo ñun depuis des années euh, ñu nekk ci liggéey boobu nous rek ci ñu parce que dafa un mouvement d'ensemble Nous bëgg Sénégal développer Baye des Baye Yoff donc ensemble au-delà de ça nous am un aspect dans le sport mooy li ñuy la violence xam nga yi ensemble bu ñu ji am ak parce que dañu di donc dans le cadre de la lutte contre la violence dans le sport ci nawetaan ak autre part nous cultiver cette culture de la paix nekkoon première édition tournoi de football bi Academy Hann Bel-Air amal ànd ceeg Atletico Coruña nek lu ñëpp di rafetlo waye itam ñu ñaax encadreur yi ngir ñu jappalé xalé yi ngir seen taxaway gëna dëgër